ndax nit kii man doo leen ma bañ naa ko du ma ànd ak moom du ma lekk ak moom du ma naan ak moom fu mu toog du ma fa toog tey jii mu woo nga ñëw làq ci gannaawam ko am nga looy ragal. Mm-hmm. conseil constitutionnel li taxoon ma sànq ma jéngul wax li may wax léegi man sama mbooloo ma xam ne dootuma bokk moom damay am taxawaay vingt personnes ñoo war dem ka présidentielle ñoom ñi dem mu ji ñaata lañu. seen xalaat mooy nañu bokk. Mm-hmm. kon urne ñaat ñaat ñaataay nekk candidat fay nekk. béy wéy na muus c'est fini. Mm-hmm. bi maanaa kon lenn rek mooy def mooy seen xalaat bi gën a am pertinent te gëm gëm yàlla nag gëm yàlla mooy daje jiital kenn ki xam ne bi mooy favorable jël la fi nekk bu jël li fa nekk nag du ceeku nag ku ci nekk am nga ceeb bu na parce que état état dafa yaatu état du kenn nii rek état du sa parti état du say xarit déedéet état. Mm-hmm. ñëpp a ngi ci biir ndax yaatu na. Mm-hmm. mais nag foog nga gëm yàlla ne diw daal mooy favorable ñu jiital ko waaye gis nga li ñu nii. Mhm. ne yàgg naa wax ne Abdou Macky Sall ñi muy ñi mu fi nawloo bëriwul man xam naa ko bu baax. Mhm. da ngay moom mu lay lay rey ci xolam te yëngu na mu ngi lay rey benn ba ñu demee bu doon da leen tontu ca saa sax man man naa nangu lu muy tontu lan la waaye dégg naa leen te lekk élection yi ubbi euh, campagne ubbi kon kañ la leen tontu xelam mooy lan mu fexee ba reculer élection yi. mais mun leen ko fësal bëggoon na ci ñoom seen biir ku ko waree wan maa ngi ko wax ko. mais ñoom seen biir nag maa yàlla baal mais y a des trahisons. na mm-hmm. ma yàlla y a des traîtres yu ci fa nekk soo xamee état ni muy dundee ñi ci biir am na pays yoo xam ne bii moo leen yabal mu bokk ci ñi yow toog te moom matul mbuus te du mbuus kon nit leen du sa force du sa xalaat ñoom ñëpp daal dañ nekk benn jiital kenn ndax jumaa nag li may réeréer kenn jiite nag te par ay imam yaa ngi def mais jumaa moom jàkk kenn jiite. ndax lan dañ ko wóolul wóol ko problème wóolute la mais lii. benn yab na leen duñ ci am ndam. heure baa ngi dem temps baa ngi dem te élection yaa ngi ñëw. tontu na leen yaa Seydi. Ah, euh, xanaa ñu liiral leen euh, tontu bi rek très rapidement. bismillah nga baal ma le président de la République euh, baal leen màkk en réponse à la requête qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 Le président de la République a reçu ce mercredi 24 janvier 2024 une délégation représentant le collectif dit de la quarantaine de candidats au dossier parrainage invalidé. Le de l'État a salué la démarche républicaine des requérants et recueilli les préoccupations des représentants du collectif. tout en rappelant notamment que le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2 2024 euh, du 20 janvier 2024, a déjà proclamé la liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président de la République, garant du fonctionnement euh, normal des institutions, a également précisé aux participants que c'est la Constitution, en son article 92, qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnels ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elle impose au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, dès lors le président de la République, toujours ouvert au dialogue sur toutes les questions qui rythment la vie nationale, a réaffirmé aux membres du collectif et aux autres acteurs politiques l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février 2024 dans la paix et la sérénité afin de consolider notre démocratie exemplaire. li mooy tontu bi maanaam ci gàttal euh, moom daal nee na euh, fi mu toll nii ñëpp dañoo war a tënku ci li nga xamante ne mooy conseil constitutionnel moom la joxe maanaam. te code électoral bi daal di leen ciy tënk ñoom ñëpp ci gàttal daal pour mu leer ci ñëpp moom mënul def dara loo xamante ne fi mu toll nii wees na lépp lu ñu mënoon def wees na lu dul tënku ci li conseil constitutionnel euh, daal di joxe nee na nag bu kenn xalaat lu jëm ci wàllum reporter ay élections. ndax fi mu toll nii euh, moom dafa taxaw temm pour ñu respecter le calendrier bi nga xamante ne moom lañ fi teg donc daal lépp loo xamante ne rek collectif bi ñaanoon nañ ko ci euh, seen lettre boobu nga xamante ne defoon nañ ko fa démb ca ndaje ba ñu amaloon moom gàntal na ko ndax nee na mënu ci dara. ko wax ja jana mhm. jërëjëf da ngay tàmbali géej. <laughs> merci au président de la République. ah mhm. nag moom <laughs> félicitations. Mhm. merci beaucoup. donc le président Macky Sall invite les candidats recalés mm -hmm. <laughs> à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. Mhm. vous vous attendiez à quoi en fait. non mais dëkk bi quand même dafa neex mais ce pays est sucré. non non ah lu tax mu koy joxe démb. Euh, est pensez-vous pas que il a été très intelligent le fait de répondre avec ce communiqué là de ne pas répondre hier. pourquoi. j'espère que c'est plus intelligent de le faire euh, comme ça parce que boo xoolee li nga xamante ni si ni moom la ko répondre euh, nañu respecter li nga xamante ni moom la conseil constitutionnel def amul voie de recours boo xamante ni si mën nañu ko ci def donc les Sénégalais ah, le fait que mu répondre xaar quoi réponse bi. xam nga dafay pour sénégalais pour ñu xaar rek li nga xamante moom mooy répondre te mu ñëw ma répondre man je vois que il a été intelligent le fait de répondre comme ça. Mm-hmm. non tu tu sais le président de la république qu'est-ce qu'il vient de faire. qu'est-ce qu'il a fait. c'est ça qu'on appelle un coup de maître. Mm-hmm. Mm-hmm. kii bu dul woon li ma ko mere lépp ci bi da koy tàccu. <laughs> dama koy applaudir <laughs> xam nga lu tax non gis nga gis nga badu. nit boo dindee ci moom intelligence xel ak xalaat. dara desatu ci. président lan lañ ko bi ma lay wax sànq ne la bu ñu ko bëggee saisir ban bi billet lañ ko saisir ils l'ont pas saisi par écrit. Mm-hmm. nu tontoo. merci. mon Dieu. <laughs> ah waaw nag wax dëgg yàlla man nag man dama am problème quoi man. léegi ñoom dem biñ fa def lan lañ fa jëlee ana utilité bi non mënoon naa am kersa tey te xam naa ni munu ci dara parce que am na foo xamante ne bu ñu fa tolloo président de la république munu ci dara quand même munuñu xeex dara ba pare bëgg koo ubbil buntu hmm. ne ko jaaral fii pour ñun <laughs> pour nous s'il vous plaît président jaaral fii déedéet ñoom ñoo bokkoon ci ñi doon soulever la voix pour dire que le président Sall lu bëri ci gestion wu réew mi lu ñeel wàllub yoon ak leneen lu ci topp daf ci war a dindi loxoom mënu ci dara il a raison de le le rappeler s'ils ne le savent pas eux en tant que politique aspirant à avoir des postes de responsabilité ou être même chef d'État dans ce pays xamuñu lu leen constitution may ak lu leen constitution mayul j'ai un souci lan ngeen yaakaaroon que bu ngeen demee bu ngeen jàkkaarloo ak moom mais dëggal na lépp loo xamante ne nii bu maa ngi ko fi doon wax démb ba tey. Mhm. le discours du président Sall ne peut pas être axé sur autre chose que sur saa ñoom ñoo ko bind tontu na leen par bind. Mhm. c'est tout aussi simple que ça. est-ce que jaroon na dem toog nga dem toog ñu affiché wu ñu xam ne yow yaa dem. nga rey sa bopp politiquement. di mm-hmm. mm-hmm. ko Idrissa Seck créé boppam ci ay jamono gaa yi dañoo gaaw a fàtte nag Sénégal. ils oublient vite man mi daal politicien nga. Mm-hmm. sax xam-xam. expérience bi. mais. cest dire que dafa am loo xamante ne xel moo koy mottali. soxlawul muus muus gu rëy nag wax dëgg yàlla pour nga mën a xam ne am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ci élection mais njiitu réew mënatu ci dara. normalement dans un pays normal. mais mami. buy dox ci état globalement le président Macky Sall que nekkul ba tey ci logique bi mu nekkoon euh, réduire l'opposition à ah, sa plus simple expression ndax gis nañ ni euh, les candidats spoliés wala recalés comme ni ñu koy waxee ñoom bi ñu dajaloowee gàtt gàtt bu ñu leen xeebee it jaruñoo xeeb ndax mat nañu mbooloo mu xaw a takku léegi pour xaajale leen est-ce que du euh, fexe ba woolu leen ñii dem ñële bañ a dem parce que indi na ay coow démb gis ko ci mel ni Bougane Gueye Dany di sànni sax ay flèche kii di Mimi Touré mel nii dafay indi jiixi jaaxa seen biir est-ce que du dafa nekk ci logique gu tas opposition ba tey gis nga déjà xoolal qu'ils arrêtent de se tirer le chignon entre eux mm-hmm. Mm-hmm. parce que ça ça n'a ça n'a rien de beau. Mm -hmm. et vraiment aussi no sense la quoi. Mm-hmm. ma ngeen mënu leen bokk toog ci table conférence de presse. Mm-hmm. Mm-hmm. balaa sax ñuy wax waxi collectif. ngeen toog yow Aminata Touré Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf non wala du Abdourahmane Diouf dimbali leen ma ñoom ñett bi ñuy def seen conférence de presse. ngeen toog épaule contre épaule <laughs> waxante waxante li ngeen di waxante ba pare. ba pare après aujourd'hui parce que kenn nee na moom du dem ca ndaje ba nga bëgg ko dal non amul sens. Mhm. Bougane aussi non loolu loolu moom. à la limite même bu fekkoon mu amul lu mu koy reproché na ko reproché ci suuf ñoo toogandoo woon conférence de presse mbagg ab mbagg. Mhm. defandoo seen déclaration joxe ndoo seen point de vue mais man dama mënut a comprendre ñuy toog di attaché wu ci ay détails alors que combat bi feneen la waaye yéen tamit nag nag nag ànd leen tuuti nag ak lii nag di lii lii lii euh, breen breen breen ah maay maa ngi seet dimbali leen ma waaye da yaakaar ne non mais non eh, xam nga lu ma gën a métti et président mhm. Sall ngi nekk ndaanaan ci wàllum politique chaque jour nga wan leen ko mhm. kenn rek a ko jaaxal ci àdduna borom Cap Manuel kooku du mayee dara parce que moom je sens ni du fàtte ni doole bi mu am askan wee ko ko jox et mm. souvent ñi fi des dañuy fàtte ne doole bi ñoom askan wi moo leen ko jox parce que man j'ai l'impression que nos hommes politiques continuent à penser que ni dañoo am ay moutons de panurge derrière ñoom fu ñu jëmalee bu sol bi rek ñoom ñu topp leen te demeewul noonu. Euh, léegi dañu am euh, euh, benn benn benn benn nouvelle génération boo xamante ni ñuy xalaatee seen mindset nekkatul ci homme politique bi fii la jublu dañuy ànd ak moom bu jubloo Kaaba ga ñu ànd ak moom Kaaba ga mu jublu soowu ñu ànd ak moom soowu léegi ñoom dañu dañu dañu dañu politique bi da leen dépasé dépassé. <laughs> te ñoom xamuñu ko. ndeysaan ou ils ne veulent maa ngi lire léegi benn commentaire u Issa Ba mhm. mu may fàttali Youssou Brène mu may fàttali wayu Dred Maxime Dred Maxime Mama del Youssou Brène <laughs> ah uh-huh. soo tey see xaw ma sa xalaat jëf-jëf ju baax sàmm sa digganteeg sa boroom jëf-jëf ju nice sàmm sa digganteeg sa moroom mhm. le temps passe vite ah? mais nous on n'a pas assez man xam naa mhm. damay dem Côte d'Ivoire ma ab bi ci kën Jaafa mu ñëw tuuti ak Alpha Blondy. <laughs> baal bañ dóor leen déedéet taxawal rek. xaaral rek benn mm, lañ bi bi bi xam nga man dama yaakaar ni réew mi dañu war a tëggaat. way bu mhm, baax. Mhm. nabu koor politiciens yu bari lan moo leen rey. ngay wax ni c'est-à-dire c'est des politiciens <laughs> c'est eux qui s'affirment c'est eux qui se tirent une balle dans la tête ils s'enterrent tout seuls. ñoom ñooy ñëw ñooy dikk ñooy rey seen bopp ñooy suul seen bopp eh. te heure bu leen neexee sulleeku nag kenn mës ta gis déet bii fa nag da ngay suulu askan wi jël xeer. waaw parce que xam nga lu tax askanu léegi ñoo sonn ci di gis fit yow. askanu léegi mm-hmm. ñoo sonn ci di gis ay politiciens yoo xamante ne en fait. xamu mm-hmm. xamuñu fu ñuy taxaw. Mm-hmm. lii ñàkk xam fooy taxaw la. mais mais man man mënuma comprendre wax dëgg yàlla ma jàkkaarloo koo xamante ne nii. depuis le début wax na la intention mhm. de yow yaa ko wax je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mu wax la boppam te yow heure boo jaaxlee rek nga ne xaar ma daw la ngaa mu ci ay tànkam. <laughs> da lay waaye yow ci kuy dem du la yóbbaale. Hmm. dama lay buy dem yow du la yóbbaale yow. <laughs> ne kay ba yow jaaxle jël paaka. xanaa nga yëg ci ko ne ko daas ba mu ñaw. xanaa ne ko am rendi ma. wala nga wala nga yëg ci ko porte bagage de s'identifier à des gens yoo à des personnes yoo xamante ne seen discours du changer. Mhm. parce qu'on est tellement habitué à écouter lu discours politicien que nit ñi dañoo dem ba dañoo démystifier sax ñi def politique. il faut que ñu comprendre ne sénégalais à la base gëmatuñu la politique. Mhm. Mhm. li ñu gëm c'est un porteur de projet waaye yow lii ñaata yoon laa koy répété pour nit ñi mën koo dégg. toujours jot. mais Sénégal aujourd'hui moo tollatul foo xamante ne wax dëgg yàlla ay digle ci loolu la ñuy dox dafa am loo xamante ne nii maanaam évidence la war a nekk pour le Sénégalais on a besoin de personnes vertueuses mm-hmm. véridiques debout courageux parce que réew day am foo xam ne bu ñu fa tolloo badu courage mooy permettre homme politique bi mu jànkoonte lépp lu dama ne la président de la république Macky Sall politicien bu yeewu léegi jamono ji moom yeewu la de ki mu jàkkaar lool ci wàllum géewum politique. kooku hmm? moo yee ñu bari. mi ngi koy calculer. kooku rekk ko jaaxal ci àdduna du buuse du randu du toxu fu mu toog la toog. <laughs> boole ci nga tëj ko yaakaar ne yow da nga wàññi dooleem nga tëj ko gën a yokk dooleem. nga tëj ko yaakaar ne di nga wàññi xam-xamam mu gën a am xam-xamu politique. Mhm. te pourtant du politique booy xool Ousmane Sonko n'est pas un homme politique. maanaam mhm. technocrate la de. c'est un porteur de projet. Mhm. quand il est sorti pour aujourd'hui éveiller le peuple avec son livre qu'est-ce qui s'en est suivi beaucoup de politiciens ont sorti des livres. le gars même quand il porte benn tenue très ku génn sol tenue très quoi. insuffler benn mouvement bu bees xale naan la da ngay sonkoo sonkoolu mhm. pourquoi parce qu'il a créé le mot résistance résistance que je retrouve dans le discours du parti démocratique sénégalais dama ne gis nga ku bëgg dara ku bëgg Dakar jinne bu bëggee Dakar ku yëg daal mhm. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire quand on combat un système on le combat jusqu'au bout on n'ouvre pas des portes yoo xamante ne da lay permettre yabel dugg na nag. Mhm. si yabel dugg na lii commencé diis torop ci sama bopp bi yabel dugg na yabel dugg na te Sénégal dafa neex yow ah, mënoo taxaw jàkkaarloo nit ñi ne yow da ngay xeex ay <laughs> ne da xeex dara ñëw bëgg wëlbati mu dem toog jàkkaarloo président uh-huh. te da ko bindoon ne ko dafa am loo xamante ne fii dama la cee bëgg saisir mu toog dalal la affiché la <laughs> def la panneau publicitaire. Mhm. le lendemain mu xëy tontu la par écrit. waaw yow kii bu nekkul daanaan lan la. <laughs> yow yaa xaru yow muy dem toog ca table ba loo fay wuti. lan du yow mun yow bëgg nga jàll munoo jàll doo seet keneen ku jàll koo xam ne yaakaar nga ni. Mhm. yow ak moom yéen a bokk ay idéologie. très que yaakaaroon nga dem renforcer ce que yaakaaroon ni sax nag euh, parce que ñu bëri nee nañu est-ce que du candidature Diomaye bi jàll moo indi problème ba ñu bëri di wootee wallu pour bëgg ñu daal di reporter yii di élection. ndax bu jomaay jàllul woon peut-être euh, yi dina gën a wàññeeku ajaratu. non président de la république du nangu affaire de report nag. Mhm. xam nga lu tax. parce que moom day bàkkoo de c'est un de droit. Mhm. dina ko mënu sax. Mhm. del xool président Sall de. c'est-à-dire ci fépp foo xamante ne dañ ko fay taqal sax ci régime am. ci lu jëm ci ñàkk dëppoo ak yoon moom bu mënul dem setal dana yónni ministre mu dem. Mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé avant-hier avec le ministre de la justice. ci mm-hmm. affaire rapport Human Human Rights Watch. Human Rights Watch. Mm-hmm. dafa envoyé Aïssata Tall Sall qui allait laver à grande eau le Sénégal comme quoi les droits de l'homme sont respectés parce que moom dafa bëgg wax ne dafay sàmmonte ak li nga xamante ne moom la état de droit santaane ci réewam. xam nga acte boobu fan la ko njëkk posé ci bi coow li baree ci troisième mandat mu ne am naa droit def de waaye damay dem da leen bëgg wan ne coow li bari na de waaye man de toute façon damay respecté ak li nga xamante ne moom la tas de droit santaane ci sama réew. Hmm. saa yu ñu ko interpellé sur des questions yoo xamante ne sur le plan international di ko interpellé sur des questions concernant le Sénégal. Hmm. qui touche à la justice qu'est-ce qu'il dit chez a pas de détenu ngeen ñëw ci biir dialogue bi à la am lu ngeen fa jot a wax mu fente leen nice ne leen ñaan leen ma ko ci njekk waaye boobu président de la république moo tànn Amadou Ba jiital ko te ñu ne mënoon naa tànn keneen ak keneen ku nekk biir Benno Bokk Yaakaar mu bëgg leen a wan ne leen ne doole gi ngeen ma may ci wàllum politique ba wóolu ma bay tànn tànn naa topp leen ci sama yoon. Mm-hmm.